Kumba ñu ngi lay nuyu di la ziar euh, fan la ñuy ànd ak yow tey ci suba. ñu ngi lay fay euh, di nuyu ñi nga bokkal plateau di nuyu askan bi ñuy seetaan ñu ngi fii ci cité CPI cité CPI nag mi ngi nekk diggante Camp Leclerc ak VDN tey ci seen rubrique euh, de quoi est-il le dañu nar a waxtaanee tur bi fan la jóge CPI daa mel na sax am na ku taxaw ni jaafara xaar ñu laaj ko. soxna si nuyu nañ la. maa ngi leen di fay. baaxee ñu tur bi. Farimata. Farimata. ah Farimata yow si cité bi nga dëkk. waaw fii laay liggéeyee. ah fii ngay liggéeyee. waa tur bi fan la jógee CPI. wala lan lay signifier. franchement je sais pas mais depuis daal damay dégg ñu naan Liberté 6 extension cité CPI mais franchement je sais pas exactement ce que ça signifie. yow mosoo gëstu pour xam tur bi lan lay signifier. si mais j'ai pas trouvé la réponse exacte à ah, Peut-être que c'est Cour pénale internationale, je ne sais pas. Peut-être, je ne pas trop. D'accord, merci beaucoup. Diafara ba léegi ñu ngi cp yi dafa mel na am na waaju taxaw fee ñu dem laaj ko turu cité bi lan lay tekki. asalaamaaleykum sëñ bi nuyu nañ la baaxee ñu tur bi. Euh, Jibril la. waa waaw Jibril euh, yow si cité bi nga dëkk. si cité bi laa dëkk waaw. waa CPI moom lan lay tekki. Euh, construction pour la promotion immobilière. waaw ah loolu lay tekki. d'accord mmh. merci beaucoup. ñu ngi fii ci kër euh, chef de quartier cité CPI moom nag dinañu indil ay leeral lu waral tur bi CPI. papa ñu ngi lay nuyu baaxee ju tur bi. Euh, man maa ngi tudd Al Ousseynou Dieye nekk euh, chef de quartier cité CPI Comico 3. Paa Dieye dañ la bëggoon laaj euh, CPI tur bi fan la cosaanoo fan la jóge CPI c'est une société bi nga xam ni promoteur privé moom moo ko fi def en en collaboration avec la banque de l'habitat nous on logement avec la banque de l'habitat donc CPI mu nekk société d'abord de construction et de promotion immobilière voilà boo génnee euh, société bi moo tax ñuy wax CPI euh, j'en profiterai aussi pour dire que euh, CPI Cour pénale internationale Euh, donc euh, ñu bëri au début dañu foogoon ni ce sont les agents de la cour pénale internationale qui habitent la voilà donc euh, loolu la daal CPI loolu loolu la signifié et je précise aussi que y a des même des propriétaires qui ne savent pas encore la signification. donc je profite toujours à chaque fois que je délivre des certificats à domicile. Euh, di clarifier ñi fi dëkk di leen laaj ndegam xam ngeen CPI j'ai constaté que ñu bëri xamuñu ko. dañoo bëggoon xam tamit ndax sanc bu bees la wala cité bi yàgg na. waaw bu bees la parce que ça date de 96 terrassement 96 premier première attribution yi en 97. moi je suis venu en 97 j'ai fait partie des premiers. Euh, des premières personnes yu ñu yu ñu euh, xëy na sax euh, à l'instar des autres quartiers xëy na loolu moo tax sax je suis devenu par la suite euh, chef de quartier comme on dit maintenant appelé délégué de quartier voilà voilà donc euh, c'est en 96 disons première attribution euh, 1997 je pense que aussi même année que cour pénale internationale 96. moo tax tur yi dafa mel ne dañoo daje. dañu daje voilà ma ngoog. merci beaucoup. ci leen jox dig jaje incha allah euh, ci beneen ci beneen numéro rubrique de quoi est-il le nom ak aussi beneen gox merci. si yaay Kumba Jaafara euh, Ba ak euh, Khadim Ndiaye euh, voilà CTCPI moom moo nekk fële ci booru VDN bi daanaka boo rombee Liberté 6 à droite moom moo nekk foofule suñu papa bi leeral na ko société construction et promotion immobilière ñu bëri doon ko jaawatle un peu Mortala ak CPI wax na ko cour pénale internationale je pense ça a de lever l'équivoque waaw parce que quand même nit ñi même ki ñu njëkk a laaj sax dani est-ce que du CPI cour pénale internationale nga xam bon ni ñi dañuy dëkk fenn seen yoon nekkul ci tur bi après euh, lan lañ ci jublu mais je pense euh, explication góor gi leer na. Mhm. Euh, cité bi yàggul quatre-vingt-seize ans. Mhm. c'est relativement jeune. amagul je pense. trente ans mhm. amagul trente ans donc je pense pour une cité c'est relativement jeune. Euh, baax na quand même euh, ñu préciser que ni amul benn lien ak CPI. Mhm. Euh, comme ni nga ko waxee construction. Mhm, promotion immobilière. bu ci am mhm. waaw. <laughs> souligner benn coïncidence bu si. ba ñuy taxawal CPI nee na daanaka mooy. mooy correspond mooy coïncider. c'est ça moo coïncider ak ñoo waaw ñoo bokk ay jumeaux lañu waaw. nga Chérif xamoon nga ko cité bi je pense que armée bi tamit bëri nañu foofu noonu je pense ay hmm. dëkkuwaay yi tamit hmm. waaw cité bu calme la ci VDN a man maa ngi doog a xam sax vraiment signification bi ak par hmm. parce que ba mu déggee CPI man mi dama yaakaar dafa am lu lien ak cour pénal glissement benn <laughs> yow it xamoo ko woon wala yow yow xam nga cité bi fi mu nekk alaaji yàlla xam na ni xaw ma ko ah pour dire vrai sérieusement xaw ma ko nag. boo ñëwee ba wàcc euh, autopont cimetière Saint-Lazare bi. boo ko wàccee rek sa droite mooy cité CPI. ah d'accord c'est ça mhm. foofu la. kon nopp dalu na. mbay dëkkoon naa xam naa ci lu baax ah yow da faa dëkkoon moo tax nga xam yëf yi <laughs> kay histoire bi looloo tax mu intéressé la mais wax dëgg eh, yàlla. da ngay traversé au fait da ngay traversé ci mosquée euh, pas Ansu bi après nga jot cité CPI. ah waaw jaaykatu oto yi. xam xam naa foofu mais xamu woon ni noonu la. oto yu rafet yooyu ngay waxaale Chérif. damaa romb rek de romb ma ci waxaale yooyu ma la xamal yëpp. <laughs> merci El Hadj Malick 7h40 jot na ñu ñëw dem RFM tey jii ñuy dalal Victorine Ankadish Ndeye ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire bu 8h jotee incha allah ñu ñëw ak Khalifa Ababacar Sarr jiite woon waa Sànnaar wax ci euh, yi fa xew fan yi muy ñaari étudiant